waaw alors suma mbokki Gambien si man la Samsudeen Sarr ma dellusiwaat leen defaral audio bi di wax askan gi waaye balaa loolu mag ngeen naa nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant góor ak jigéen mag ak ndaw waaw def rawoon naa benn audio démba boo xam ne ci angale laa ko def jëm jëmale ko nag ci affaire TRRC bi. TRRC bi may cee ñaawlu li ñoo def ak li ñoo wax ak ni ñoo ndoxale seen bër parce que man dama foog ne TRRC commencé ko ñoom South Africa Rwanda Ghana foo nekk soo gisee ñu def ko pour seet la passé woon waaw li ci ñaaw dañoo gënee gën a seet nag waaye seetaale tam li ci rafet ak la ko waral ñu seet naka lañ koo defaree ba ëllëga si biir lañu daloon bu mu ñu dalati loolu lañ dee jubluwaay moo tax ñu ne ko naka neewa yegeen loolu nag soo koo def danga koo teg ci loxo ñu déggu ñu am maanaa ñu am yar ñu am kersa xam àdduna bu baax waaye doo ko teg ci loxo ñoo xam ne dégguwuñ seen góom seen góom dafa dafa questionable in fact soo ko seetee sara ngaa foog ne gomuñ dara ku mel ni Essa Faal ak ñoom ñëpp waaw ñi ci ëpp yëpp liggéey lañ am rekk di ko sàmm xam nañ ne su du toon TRRC bi duñ am ci dara luñ jàppa ñu leen a fay xaalis bu dul jeex ñuy ñëw di wan nit ñi ne ñoo fi gën a déggu waaye li ñoo def man dama ne Gambien si waroon na nañoo toog ñu seetaat ko o oh, National Assembly biñ dee coowee ne moo leen jox mandate pour ñu def ko waroon nañoo toogaat xam ne lañ defoon dañ ko war a seetaat parce que ci liñ ko doxal du dëgg du yoon waaw mu jógee rek National Assembly nekkul ne dafa war a correct National Assembly bu yàggul fii leen jox seen loon seen boppal loon ñu ngi wax ne correct ñu ngi koy yóbbu ci court si National Assembly bi ñu ngi toog ci dëkk bi di seetaan international troops ñëw occupy dëkk bi xamuñ ci luñ lañ occupy dëkk waxuñ ci dara soo ci lañ nekk yéen ay loolu du yoon so National Assembly bi perfect tout perfect loo xam ne dinañ def def loo xam ne nit ñu waruñ koo question soo di di dóor seen dënn yi ne National Assembly moo leen jox mandé pour ñuy def li ñoo def te ñu ngi ñu ngay yàqa instead of ñu defar ñun ñëpp dañ am rights as Gambians pour ñu wax leen ci liñ nekk du dëgg du yoon suñ ko ragal suñ ko ragalee wax nag man nag ragalu ma koo wax parce que nar naa ci lu nekk waaw parce que soo ne never again doo ko teg ci lu mel ni Essa Faal Essa Faal déggu bi moo wane moom la déggu jub bi moo woon ne moom la jub Essa Fall moo doon represent Charles Taylor ci Essa Fall international prosecutor la prosecutors lawyer yoo xam ne leen dañoo jël fen def ko dëgga jël dëgga def ko fen ku taxaw taxawoon di wane ne Charles Taylor ci lim nekkoon dëgga la ak yoon la xam nga ne kooku du mun a ñëw tey ju ñuy wax ne ci li Yaya nekkoon du dëgga du yoon Essa Fall mu taxaw doomi ay Gaddafi dañuy wax ne ci liñ nekkoon dëgga la yoon la duñ mën a ñëw xëy suba daañu waa APRC government ak ñi leen doon represent ci liñ nekk dëgg du yoon ci lañ nekkoon du dëgg du yoon façon ngi nit ñooñu doo leen jox TRRC danga ko jox nit ñu tegu ñu gëm yàlla ak ay joojes ñoo xam ne dañoo segga wax xelaat ko boole ci pro si ak kon si ñoom Desmond tuutu lañ ko joxoon South Africa man ba ma ko déggee sax dama ne woon ne people like Pastor Forbes ñooñu lañ waroon naa def ci amaan waaye ñoom docteur Lamine Cissé ñi nga xam ne dañ brain dead liñ dese rek mooy di remember di past things yoo xam ne dañ akkeek yi gën a yooyu la ñoo wax di fëgg seen de Geneva Convention waaye ba ñoo nekk United Nations ñoom Daka Maajo in 1963 waaw li. li moo wax sax paabu bu xam ngeen ne li moo wax xamul jubluwul is is di moo daan mel yu ne yoon soo ko yóbbu in outside kii kenn du ko yóbbu fenn ñii dañ dem yu xam naa dem naa United Nations gis naa fa soog ni ña ñëw di wéyante di taggante di lobi ñu leen faa ci liggéey waa maa ngi woon ci Kofi Annan xëj naa di ko wéyal Kofi naan yaa fi sës Kofi Annan yaa ci la Rwanda tàkka atrocities yi am ci àdduna si time ñum ko fi anaan amul fen soo di ko bàkkoo waaw african la ghanéen la ñun ñëpp we are proud of him waaye tubaab yi lañ daan liggéeyal di def yu bon ci àdduna si moo tax Chinese yi respectuñ leen Russian si respectuñ leen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen respectuñ leen xamoo ne ñi ay lànki tubaab yi la woon ñoo xam ne luñ def luñ leen def loo ñu def ko su su ñëwee balaa moo muy yooya ki lay daan liggéeyal ko fi anaan di def yu bon bi ñaaw rek oo nekka lanki boo xam ne you are a mentally a slave to the white people ñooñu nga soo ko dégloo nga xam ne kii amul maana xamul lu du toppe al toppe soo léegi du ko fi anaan xam nga kan laa topp Essa Faal su ko Essa Faal ne kaay ñu tëb daf ko def xaaw xaayi soo façon yi nit ñi waxuma ñeneen ñi moom ci commission bi ñoo ñooñu ñoom job la ñoo ut am ne al ñàkkay waaw am na ñoo xam ne moom xaw ma ban crédentiels lañ paas sax pour ñëw fa ñu leen ni commissionnaire Samba kooku su ñëw nii ñuy wax daxaar gi muy wax bëy bi kooku soo ko suñu jàkk su su ne ñekk nga xam ne xamul dara naka lañ ko cuusee instant bi wax ni waaw sa njàng dafa war a mokk sa njàng war a wàcc par nga war a am liggéey pour nga war expérience you know commissionnaire ah, Samba boobu fu mu jàngee. dañ leen seen seen jàngat ñoom ñëpp dañ ko waroon a génnee ku nekk ñu wax sa background ni ñoo waxee nit ñi seen background dañ waroon a jaay ñëpp ñu wax ñu seen background balaa ñoo commencé waaye ku nekkaa ngeen lu ma sa background parce que suñ suñ waxoon seen background fañ commencé di ngeen xam ne 1994 ba coup d'état bi di am fii bi Essa Faal di ŋañña nii mu ngi ci dëkk bi nekk ful looya daw ci ganaaw yaaya daw ci gannaaw AFPRC government bi suñ ko ne loo loo la ca defal mu def waxal mu wax dawal mu daw tëddal nga tëdda yépp pour sama liggéeyam anam lu tax waxuloo yi ne dafa illegal li ko coup d'état soo ko def li nga njëkkaa da ngaa suspend constitution dana gën a garaaw loolu lu tax ne leen man su dee lii la du ma ci dëkk bi maa ngaa dem yi ñëw di wax loolu lañ laa wax tay boobu mënut a dem xamul fu moo dem te mu ngi soxla liggéey loolu la ko nit ñiy wax nit ñu bëri ñu bëri mënuñu woon a jóg dem ñu bëri amuñu woon fu ñoo jublu soo dangaa ngaa seet naka manager mu ngi nuroo rek nga xëy suba nga am kansa kansa soo ko amee oo nga am feebar boo xam ne mënuloo xam la da def ndànka ndànka di ko faj soo ko mënut a faj su dee daa bi nga live with it manage with it noonu la àdduna mel. gouvernement bi gouvernement dafa ñëw mel ni xansa waxuma gouvernement coup d'état sax de da nga am gouvernement civilian nga nga nga vote ko in power mu ñëw mel ni xansa ñu bëri duñ mun a jóg ne maa ngaa daw you know dañoo toog di jéem a mëne mu xóor na ne ci li nga nekk every day dafa mel ne ci prison nga nekk waaw waaye yow di fugga sa dëgg bi di saaga nit ñi di leen disrespect nga foog ne yaa ngi ut dëgg gi ñu bëri dañu ragal rek o ñu bëri ñu ngi seet survival bi seen survival moo tax ñuy ñëw di fen ñeneen ñi duñ la wax seen lifin doo xam dara ci li li nekk ci seen xol yi ñi am lifin ñoom ma ñoom xaari sàmm luñ la wax ah ñu dey suñ liggéey lañ doon sàmm wala fen nañ fen di tooy yëpp waaye suñ liggéey lañ doon sàmm luñ leen def loo dinañ ko def luñ leen wax loo dinañ ko def yooyu itam loolu ah Essa Faal noonu la meloon ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. commissionnaire soo suñ ko waxoon seen background te dañ la wane soo moytu sax dañ daan sol oso bi Yaya Jammeh ñoom ne ko tàccalu because coup d'état military government dafa amoon ci àdduna si te nit ñi dañ ko legalize woon Jawara military government ñaareel bu amoon ci Africa moo laa njëkk recognize including ñoom Samuel Doe ñoom Babangida Gaana foo xelaat you know because military government dafa normaloon léegi dañoo wax ni ñun liñ li Gambie waroon naa def mooy ne pour never again ñu seet lana waroon naa tax coup d'état bi am loolu buñ ko répétaat noon ne bi coup d'état amee li am parce que coup su amee li ñoo nekkaa déclaré maasalloo te coup d'état ñaareel ba ñi koo taal yëpp ñu bëri daf ne naa dañ cee loru ñu gënoon a tànga tànga bi si coup bi muy ñoom Sana Sabally Sadibou dara you know um, uh, um, Edward Singate seetal li dal yow foog nga ne yow di ñëw ne dama taar réew lii pour pour loolu dal la déedéet Sadibou Haydara ci kaso bi la dee bam ñu bam ma jàppee ñun bañ jàpp bam ñu Sadibou Haydara jàppee moo sana saabale dugal ñu mayal tuub ñuy ko dégg muy wax ne ku fi feebar soo ko yóbbee l'hôpital dañ ko ñëw di nga ñëw tëdd fi mooy moom minister of interior bi man ci moom laa njëkk a déggee loolu ku fi feebar soo ko yóbbee lopitaan di nga ñëw jël palaasam ñu teg ci mutut ay weer sax mu feebar kenn yóbbu ko loppitaan mu dee fa su ku la wax ne you lañ nekkoon ñoom buggoon nañ ko sax daf laa nax da nga foog ne Yaya Jammeh ngi woon ci jàmm Yaya Jammeh nekkutoon ci jàmm Yaya Jammeh mun naa ne amoon na good intentions nag soo ko very excellent contender they've tried na his level best waaye every day dafaa xëy suba ndax tey naag ëllëg parce que ñu ngi koo fexeel pour rey ko ñu ngi koo fexeel pour coup d'état ko parce que coup d'état moo dee générate yooyu government sax ñoo meloon noonu ñoo dee générate yooyu waaye moo tax moom itam pour mu defend himself defend his beliefs moom it daf doon def any means to survive te hey maa ngi waxal ku fa nekkoon te Yaya Jammeh daa def noonu ngaa def su doon nag balaa nga coup d'état dañ laa tegal vidéo war na ne lii mooy happen starting ba end ñu bari dañoo ne ca nga nga yóbbu ma ca suma bàmmeel ba moo ma gënal ma dugg ci waaye kenn amul bëggee soo coup d'état naka laa mel coup d'état bu nekk dafa am résolve sam loolu nag ay dof rek ñoo ñëw di toog fii bañ xool dat réalité ne da ngaa dugga di seet waaw lana xappu noonu waaw lii mu ngi naroo nit ñëw ne la moto biñ duga dañ dem ba ci yoon bi discovery moto bi amul break dañ taal moto bi daw bi ca digga ñu gis ne amul break moto ba am accident ñu bëri loru ci ñu ngi survive ñu ne waaw dañoo delluwaat di same route ñu ne indi leen moto bu amul break ñu trayaat seet yoon wi pax yi ñu waroon a moytu ak pax yi ñu waroon a moytu yi ñu war a moytu ci ci ci accident ngaa mujjee rek dama foogoon ne 2007 biñ ne taa bi dëkk bi taaka biñ ne waaw Macky Sall ne dina taal dëkk bi ci suñ loxo you know xelaatut ci bakkan xelaatut ci dara te ñu ne dañ lay wax dañu ne Ablaye Wade ne maami Macky Sall yi ñoom ñëpp dëma lañ woon bois li nit ñuy wax dëma ñu ne ñoom ñëpp dëma lañ woon su dafa ñëwoon pour yàpp Gambien si man loolu laa doon wax indi dof bu mel ni François Ndiaye di wax naan oo oh, dañuy amoon dañ doon toon Gambia pour doom nga xam ne nit ñu bon a taxawoon noonu pour yaaxa réew lu taa defuñ ko Ivory Coast ñooñu dañuy rey seen nit ñi ci lu jubadi lu tax defuñ ko Guinée te ñu rey seen nit ci lu jubadi élection problème Mali lu tax demuñu def ko loolu waaw su parce que Mali coup lañ def li gën a ñaaw ñun amuñ woon benn violence ci dëkk bi waaye xam nga ñu ne golo xam ne fa moo garab gu moo riib taatam yi loolu la because xam nañ ne Gambien si dañ peaceful Gambien si bugguñ na fitna moo tax ñun biñ ne jaame soo génnu dinañ dal ci sa kaw dafa génn lana war a tax ngeen dugg ci dëkk bi nangu dëkk bi te condition si taxoon coup d'état am in 1994 ñu ŋàññee ko foreign troops si nekkoon ci dëkk bi système bi foog ne protect na leen ñoo dellu si waat that same système moo dellu si waat foreign troops ñëw nga tuutil sa ami sa ami amuñ sa sa security forces si defuloo nit nga caaxaan rek sa biir bi fees na ñu naan la wiiw yaa fi ses yaa toj réew mi yaa rey gaynde gi conditions yu gën a garaaw lañ daan defal Jawara waaye ba mu eggee ca maraaj ma corruption bi ne xuy ci dëkk bi soldaar yi ña jóg sax dañ xaru la coup d'état yi fi xaru la Ismail life oo li ci am dafa am waaw soo ñëw National Assembly bi dañ waroon naa njëkkaa def after transition bi biñ gisee ne jàmme dama jàmm am na ci dëkk bi naa taaj commit et commission ne kaay leen ñu look into foreign troops ci dëkk bi la na leen fi taaj suñ ko defoon dinañ def a thorough investigation te dinañ xam ne li leen indi ci dëkk bi yëpp ci fen lañ ko wéer dem United Nations ne army bi yëpp ay MFDC la jongla si MFDC lañ rebel si Casamance NIA bi MFDC la rebeli Casamance police bi eh, rebeli Casamance foo dégg nga joolaa ñu ne gis nga joolaa bi jox nañ ko liggéey ñi ñëpp rebelle Casamance lañ man am na ku ma Musa wax ne ba maa man tuuti ma ko sax am na ku ma wax da ngaa dem ci checkpoint Gambia nga làkka olof nga làkka english kenn du ko understand nga làkka nga làkka olof kenn du understand nga lekk mu ne policier ak ak armée bi lii lañ doon wax ci international community bi lii lañ wax United Nations suñu ambassadeur yu bon yi ñëpp ñu bàkkoo ñi nga xam ne yaay jaame daf leen tegoon sukkandekoo ci ñoom man mi nga xam ne ay cere li fi laa rek sikkim laa woon ay député ambassadeur laa woon yàgguma ci système bi sax two years laa ci def maa ci taxawoon di leen wane li ngeen naa wax du dëgg du yéen da ngeen naa fen lii amul Gambia Gambia waaw Saara fi nekk waaw Saara enebula la senebula la waaw Saara enebula la waaw du enebula man dama xamoon li ma wax ba pare dama am jom ba pare nekkuma Samba al toppeen yaay jàmm mi nga xam ne xam na ma xam naa ko xam na lu ma façon nit kooku yaay lu ma fii laa lii raytut su ma toogee damaa ne ko saa lii raytut ci ci ci ci ci ci respect ñu wax ko mu xam ne li maa wax dëgg la waaw su raytee mu expliqué ma ma gis ne rayt na mu rayt waaye lu ma gis ne lii raytut su man ba maa nekk United Nations liggéeyalu ma woon waxu nekkul ne Yaya Jammeh laa doon support non Gambia laa doon support parce que xamoon naa ne ñi jiite Gambia ci pax miñ koo dugal xamuñ ko léegi lañ soog a gis ne senegal nangu nañ réew mi ci suñ loxo waaye ba ma koo wax ñun ñoom benn lañ ñun ñëpp lii lañ waaw léegi ñu ñoo indil ay police conditions yooyu yëpp dafaa cause coup d'état li ci ji jublu yëpp di ñoo def ana neefa yi génn bi ana neefa yi génn bi nee ay bi te yaaya jàmme fi defoon moo reyoon kale mo yaaya jàmme daf doon defend boppam waaw loolu lay wax nii of course am na nit ñu bon ñu nekkoon ci système bi itam ay ñoom xaari sàmbu ñoom Ablaye Kujaabi ak ñoom ay ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne yàqaa fen rek lañ ko jëfe noonu of course yaayaa dafa impulsive woon because ba pare li ma la wax rek ragal la toogee woon foofu parce que soo coup d'état yee nga toog da ragal ne li xappunoon dina ma xappunati loo ci am nag um, kéene gu rafet sa xel du dal parce que saa saa yëpp every day ñu la toppa waaw soo moo tax moom it mu meloon ni mel kenn bugguma kenn jox a chance ne kilee ngee liggéey kilee ngee mu ngee jéema li fi li ko fa taaj sax you know um, accident la waaye ñun ñëpp a ko célébré ñun biñ ñoo jàppa ñun dégg nañ li xew ci dëkk bi you know 1994 July 27 ci lañ ma jàppa after biñ walkee out bañ nekk soone xeex amul ci dëkk bi jàmm am na big system ba government bi form ci la sana saabali ak xaydara càppama ba tey jii suñ ma wax sax lu tax ñu jàppama waaye dëkk bi yëpp dañ ko dama def dara te suñ ma rayoon dañoo ne waaw am na ñu demoon di saaka suma yaay sax naan ko waa ñoo waa Serekunda ñun dañ déggee ne yaay Sam saa def nañ ko ministre ñun ñëpp a célébré ndeke te dafa bëggoon a rey Yaya Jammeh te du demeewul noonu dañ ma sosal fenal ma because of ñoom sana saabali ak ñoom euh, ak dara su waay coup d'état moo mel noonu biñ ma bàyyee dem naa seeti Sana saabali mayel tuub fekk ñu ngi ko tëj dossier yi ñu Sana saabali ba tëj ko dossier yooyu laajal Denis Coker Essa Fall moo ñëw préparé dossier yooyu jox ko ñu prosecute Sana saabali tëj ko moo tax ba mu toogee Sana Sabally di wax muy jooyi ma ne ki lay naa fexa fii la naa fexa am waaye ba ma paree ba bañ ma génnee ba doyloo ma ci système bi ma delluwaat merewu ma kenn parce que ba ma demee nit ñi waaw lu dellu ma ne leen lii mooy coup d'état coup d'état fa moo ñambi bu damala fa moo damee doo ko xam su ma jógee ne duma ko jël maa ngi génn damaa génn réew mi su ma génnee réew mi dañoo ne waa gis nga ko daf doon coup d'état ñu jàppa ko tëj nañ ko seel génnee nañ ko di ko joo liggéey daw na xam nga nit du la bugg a coup d'état nga génne ko nga def ko député army commander so loolu laa bëggoon naa setal nit ñi ne defuma dara moo tax ñu génnee ma def ma député army commander ba ma fa jógee dama dem ba mayal tu fekk fa sana saabale ak gaad sam yëpp ñu ngi taxaw njaay ponkal du ko fàtte mu ngi amee kurus mu taxaw ni ma he saa ñun ñu ngi nii ñun ñu jàppa defuñ dara ñu jàppa ñu def li ñoo wax ne coup d'état dañ ko def ñu defuñ ko ma ne ko njaay Ponkal sana saabalee ngi soo ko nee kana ko musoo naa gën a protect ci armée bi dina la ne Sam Sarr dama soo ko ne man maay woon his best friend moom sana saabale mu ëlbate ko ne ma yes sir you are still my best friend ma ne ko waaye lan la def ma ne ko bañ ne taa coup d'état bi sana saabale xamul limoo def mu jàppa ma jàppa sumaay naw li indi ñu tëj ñu fii benn tey musuma wax mu ngi nii taxaw wax ko lan laa def mu sëgani xuy ci suba ma génnee 25 dala si may ko sana saabali da dee man du waat nag waatantu du suma affaire waaye dëggal li maa wax nii soo ma déggee sax nga xam ne dëggal laa wax njaay ponkal mu ngi ci dëkk bi soo ko koolee dina la ne dëgg la parce que njaay ponkal dama ma moom expérience on the 22nd of July man maa àndaa moom rek radio Gambia ñoo escort pour ma def an announcement ñu dem fekk radio bi doxul soo kooku ngi ci dëkk bi ñëw na ci ci ci ci TRRC bi wax na sax ne demoon nañ radio Gambia waaye ñoom Essa Faal bugguñ koo laaj yow yaa kanama nekkoon la radio Gambia lan ngeen fa def ak lan ngeen fa parce que xamoon na ne suñ ko ko laajee dina leen wax ne Sam moo kwel moo def jàmm ci coup d'état bi daal waa ñu ne nañ leen ñaawal sa sa tugaante ko mun a waaw ka foog ne yaa defar fekk nga ne danga ngaa tànn ñi ngaa yaaxa man kenn du ma mun a yaaxa man yàlla ma defar waaw yàlla ma defar te kenn du ma yemee mun a yaaxa xam nga monsieur ne suubale sóobaale ne Sam Sarr a ngi fi te mun naa taxaw wax mun naa taxaw ma binda ba pare jéngu leen man pare naa ci lu nekka parce que wéeru leen dara ci li ngeen a def ay dëkku leen ci dëgg nekku leen ci yoon fenkat ngeen tappatekat ngeen ay ràmbaajkat ngeen te yéen a ngeen yàqandika bi te xamu leen ko te du ma noppi bu dinaa continuer di wax waaw ma leen a wax lu déggu la waaw yëfi NIA bi ñu ngi koo wax esa di wax naan waaw ana right si gars yi waaw lu tax joxu leen leen independent witness waw lu tax waxu leen leen ne you know environment biñ nekkoon you know ndax am nañ freedom pour wax hey Essa déglu ma tey ma wax la ne coup d'état demal Ghana Nigeria Sierra Leone coup d'état su amee amatu sax ne da ngaa indi ay police da indi ay NIA independent witness loolu soldat yi rek ñoo ko dee toppatoo gis nga ñooñu bés 2016 su coup d'état bi successful woon li ñoo ñi kaa wax mooy ne dañoo suspend dañoo suspend constitution bi oo ñu déclare martial law te yooyu yëpp dafa legal ah soo suspendé constitution bi nga nga nga déclare martial law loi jox na la nga use the law of the gun ni ko noonu bés boobu xëj na ñu bëri la ñoo round up and they will shoot them te da ngaa toog fii yow soo fi nekkoon danga ngaa lem sa ngeen sax soo moytuwul leen tàccul ne leen ci sa net ne da nga jàmbaar le because da ngaa ragal da ngaa nekk yàppar ni 1994 biñ suspendé constitution bi di arrest nit ñi 11 novembre bi soldat yi di counter ku ñuy reyante yaa ngi ci dëkk bi lem sa geen parce que yaa ngi ne yàppar di protect sa sa sa liggéey waaye nekkul ne teg fëgg nga sa dina di def jàmbaar yaa amut loolu laa laa wax 2006. gis nga ruum ba ngeen nekkoon ruum ba boy yi nekkoon ñuy interroger soo gisee borom fetel yi taxaw fa xamuñ fan la kana bokk ci coup bi ñu ngi bugg a xam ñëpp parce que coup dem na ba nga foog ne foyal nga ko ba toog ngay interroger ñi nga foog na ñoo ci bokk ñeneen jógee fële ñëw fekk leen fa rey interrogateurs yëpp génnee génnee ñi ngeen jàppa kon ñu coup ñu ñu finis coup d'état bi taxawal seen gouvernement bi loolu dafa am ci coup d'état mu tax su coup d'état amee soldat yee koo toppatoo Nigeria li ñu fag li ñoo njëkkaa def dañ ko dañ laa ros within two weeks dinañ la yóbbu court martial indil leen seen lawyer boppa indil la sa pristi boppa indi seen judges seen everything ñu yóbbu la fine la guilty nekkul ne da ngaa def eh, yes yow ko defoon yaa fine la guilty firing squad soldaar yi ñëw ñu rey la noonu lañ dee coup d'état noonu la soo soo suspecté sax ne am nañuy organise coup d'état noonu lañ ko dee defee ci other countries 1994 ah dëkk bi yëpp xamoon nañ ne coup d'état ngi ñu ngi coup coup d'état ci dëkk bi ñu bëri xamoon nañ ko man foog naa ne sondee laa ko yëg Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday mu happen waaye man bi ma ko yëgee sax aw ma ci lu ma óor bi ma trayé pour ut lu ma ci óor mënu ma koo am waay ñu bëri yëgoon nañ ko ci dëkk bi de understand su ma jabar sax ñëw naa muy ma ko waa ma ne ko ah loolu du dëkka because dégg na ko ci dëkk bi police yëg nañ ko soo déggee ci testimony gars yi sax di nga dégga demoon nañ stand by fa li ñu dimbale sax mooy ne Nigerian si time boobu dafa amoon amoon problème among themselves waaye nigerians suñ amutoon problème amul ñoom self daada amoon di autorité bi mu soxla woon daf doon recommend pour jawara ñu round up soldat yi plan yep, because xamoon nañ ñan lañ round leen dem ñépp yóbbu leen firing squad rey leen how many gambians ñoo doon war a understand loolu parce que that would have been the first time jawara sax du ko understand ñu yéen benn suba arrest edward singate ara sanama sabali dara sërif bi ñu ne kii sërif la Yaya Jammeh ak ñeneen ak ñeneen ñi ci bokkoon yóbbu leen ci fire and range bi because ñu doon fire plan coup d'état ñu shoot ne nii la ñoo def ci coup d'état how many Gambians you don't understand loolu so loolu dañoo ne sax alhamdulilah egguñ foofu alhamdulilah reyante amut waaye condition si taxoon coup d'état am loolu lañ waroon a gën a seet bi ñëw di def corruption abuse armée bi abuse security forces yi ñëw indi foreign forces yi loolu waroon naa nekk ite Gambien si tey ne lii buñ ko fi defati parce que never again foofu nga ko war a staté balaa ngaa seet lana lana waaye ngeen fàtte loolu yëpp nekk ci yëfi nonsense yi nga xam ne self defense la woon self preservation la woon ku nekkaa ngi préserve sa boppa Essa Faal dafa ñëw nekk ci dëkk bi di lig as Yaya Jammeh ba mu ekkati ko ni ko waraay demal United Nations suma ma seen la foofu nga nekk ci suñ mission bi foofu la foofu la carré yaam jógee fii mu nekk ci international prosecution bi waaye nekkul ne dafa jógee fële bokkuma ci ñun dégg ko muy coow di fëgga dinaam bi fu nekk ci àdduna si non loolu musta am kana musa dégg Essa Faal man foos dee ma dégg Essa Faal maa ngi mayal tu xam ci àdduna si musuma ma ne sax mus naa tasee moom ci suma nit ci suma àdduna waaye bu ko déggee dañ ma ne moo leen naa ki ñoo wax moo leen naa ñëw prosécuté xaw ma lu ci diggante boobu waaye déggoon nañ ko naa ko mu wax ci TRRC bi ne waaw ñoom baloo Kanté dañ leen tooco waaw dina indi vidéo bi vidéo bi pour wan ko gars yi nga wane seen condition naka lañ leen toojoo ay wish he had brought that video ndekete mu ngi woon ci dëkk bi te mu ngi woon ci dëkk bi time boobu lu tax time boobu ñëwut ami headquarters as a lawyer or a concerned citizen li moo wax nit ñi a concerned citizens of conscience ñëw ami headquarters ne yéen li ngeen a def ni du noonu o mu dem ci NIA li ngeen a def nii du noonu o justice minister ñoom ñoo prosecute ñoom Baalo Kante bañ tëj leen ñoom dossier yooyu yëpp ñoom ñoo ko préparé algaali commission bi yooyu yëpp ñoom ñoo ko préparé lu tax lu tax ñoom Essa Faal defuñ loolu waaw waaye nga ne xaaral bu ñu rek tilima deret yëpp deret yëpp waaye man suma deret naa ko suma suma suma man dinaa setal suma mbokk hey du demee noonu ñun dinañ wax li xam waaw te maa ngi xaar ñu ngi xaar nag report boobu su génnee dinañ seet ñi ñoo prosecutor ñu dul prosecute xanaa yow Charles Taylor mi doon difen moo tax nga jël rey katam yu mel ni Mballo Kanté di ko indi ci dëkk bi di ko def jàmbaar oo di ko def victime ñi nga xam ne dañ daan reyante Mballo Kanté ñu nga dogee weenam bi Liberia Liberia lañ ko jàppee rebel si ñoo dog weenam bi moom moo kañ daan wax Domingo dañ leen jàppa Domingo dañ ko gas suul ko alive Gambien la waaw waa waa waa dex gi la ñu ne Musu Keba Cissé you know something like moo Moustapha you know ñooñu ñooy rebel si nga xam ne ñoo daan reyal ya Charles Taylor mbaalu konte ci ñooñu la bokkoon yu bon rek lañ daan def man kenn ci ñoom sax foog naa ne Omar Damfa wax na ma ne ñoom Liberia dañ daan dugg ci village amuñ luñ lekka ñu rey xale yi génne seen organe ñu togga ko lekka ko time bi leen a interrogué nit ñi gën a tilim nit ñi gën a soxor nit ñi gën a bon lañ indi mu leen pare ne ñun ñooy victime ñu rey suñ booy yi leen fa teet bëgguloo wax loolu sax waaw da ngeen leen toocoo ñii waruñ woon a dunda tey dañ leen waroon a génne line dem up and dem loolu la soldaari yi waa jox nañ leen all di di di advantage di freedom ak di opportunity pour yóbbu leen koot ñu defend seen boppa ñu find leen guilty tëj leen waa ci tëj boobu sax dañ dem ba toog Yaya Jammeh jóg ne baalal na leen ba mu Yaya Jammeh sax ba mu def baalal boobu daf ñu war dafa waroon a console nit ñu bari waaye daf ko jógee ci xolam rek ne xaaral ma def lu rafet rek bàyyi yëpp waaye Yaya Jammeh waroon naa xam ne lu mel ni mbaalu kante sax warut a génn xëy na ñi repent ñu ñu da leen a put on a parole board ñu ñëw laaj leen loo fiil waaw nga wax sax li fi ñu rek ko xam ne kii ci ñu ñaaw lem daan def du ko defati nga bàyyi leen waaye maa si mbaalu kante yi nga xam ne nekkuñ ci dëgg nekkuñ ci yoon gëmuñ yàlla fen lañu ñu dundee rambaaj jàngut xamul dem us ta dem dara ci àddunaam mu ne di only profession bi mu amoon mooy daf daan dem di béyal nit ñi ñuy koo fay xaalis after daan dem di reyal Charles Taylor ñuy koo fay xaalis kii su dëkk bi tàkkoon ñi lee doon jël dëkk bi lakk ko ci suñ loxo soo ñii waruñ loo naa bàyyi sax ku mel ni mbaalu ko taxaw ma ñeneen ñi de waaye ku mel ni ba kooku koo bàyyi sax mu mu muy róom ci dëkk bi waaye Essa indi ko di ko defee jàmbaar waaw soldaar yi taw ay cek mel ni kuy yàlmaata waaw waaye loolu loolu nit du def nañ ñaan yàlla rek jaama di am ci dëkk bi waaw waaye you know ngaña bi ngaa ngaña nit ñi ngaña bi ngaa ngaña security forces si ngaña bi nga wane ni li defaruloo dara ci dëkk bi danga ngaa yàq éléga si biir bés bu dëkk bi taxawee ci diggante ñi nga yaakaar ne ñoo taxaw ne dañoo war a protect dëkk bi soo tu duñ bu ga def dara because of yow moo man dama ne len ami bi bu len wori NIA e bi NSS bi way don't know SIS lañ police bi bu len wori ci li ngeen dee def lu déggu la pour protect de kabi waaw soo len gisee lu ñaaw taxaw len ngeen lum len mëna jël na ngeen def ko su necessary pour nga put a eh, bullet in the head of a criminal ko xamne dafa bu ko yaahade do it bu leen xelaatal Essa Faal dara parce que Essa Faal boppam rek la fi taaga dégg naa aset sam yeeg àddunaam foog naa ne jabaram sanga Sénégal ñii suñ taaloo dëkk bi dañoo dem toog senegal di ut international job international job la ñoo ut nii suñ paree man maay woon prosecutor man maay woon lii waaye seen record is dirty gis nga nag Covid 19 bii dafa expose àdduna seen lu bari waaw parce que xam nañ ne jub bi niñ daan wax ne moo nekk ci àdduna si amul. Donald Trump Amérique nga xam ne ñun ñëpp Amérique lañ doon si euh, soo buggee justice soo buggee démocratie soo gisee rule of law ñun gis nañ ne xew Amérique ci under Donald Trump moo tax amul Chinese amul Russian amul no kenn respecté tuuti Amérique because of nit ku bon ni mel ni um, Donald Trump dinañ ko jéem a def rafetal nag waaye every day nit ñaa ngi génn di wane ni Amérique jubte bañ fa foogoon amu ko. so yow ban dëkkaa jub ci àdduna anu si ba nga ne gambia da nga ko war a def mu perfect ben yow fay gën a ah, jubadi ba pare gis nga nag li li tax aduna si du mun mel na sax ni meloon mooy ne dama ko dee wax ma social media su amoon bala coup d'état bi in 1994 jawara du laas xëj na benn five years parce que jawara nguuram gi liñ def ci dëkk bi moo gën a ñaaw tilim soxor ñoo gën a tuur deret million times time yi jaman jaame ikku koy fi ne how many people ñoo dee ci dëkk bi kana ko wax corruption bi nekkoon ci dëkk bi ku koy everybody knows ne bi ku di hit dëkk bi in 1981 dëkk bi foreign exchange sax amuñ ko jawar jógee fi dem donati Prince Charles and Princess Andrews Eh, sorry prince ak eh, princess Anne was it seen seen seen wedding bi Diana rada Prince Charles ak eh, Princess Diana seen wedding bi daf leen dem donate xaalis and the whole country was crying about it moo tax biñ ko coup d'état mu ngi ko fekka London muy wax British yi dañ ko dimbalee dañ bañ ba tëdd ci suuf Sénégal la ko dimbale mu ñëw ñu rey filin yu bëree bëree bëree bëree time bu mu jawara am na ci government bi 16 years ñëpp dañ waxoon ne five time bu la waroon na toog sax mu seet naka la transfer power pour ñu am continuity ak ñu miin ni ñoo transfer power ni ko Senghor defe woon ci Abdou juuf Jawara seet joxe ko waaye ñu rey ñu bëri jàpp almost two thousand people tëj leen ci military camps si di leen torture di leen def dara TRRC bi foofu la ñu na a commencé waaye mistakes si Jawara continuer di ko def moo indi coup d'état 1994 gis nga ñu indi nag foreign troops ñu yaxal ñu suñ suñ freedom bi léegi billahi conditions yi jawara starté woon bañ taal dëkk bi ba booy si jóg rebel di same thing moo fi nekk foreign forces yi suñ ko waxul you know waxuñ dara yes nekk fii di wax naan waaw ma daal li ma wax rek mooy ne TRRC bi nañ ko waxaat nañ ko waxaat ci liñ nekk du dëgg du yoon you know te ñi ki ñiñ ko teg ci seen loxo xamuñ li ñoo def xamuñ li ñoo wax dañoo yaaxa réew mi TRRC bi lu tax joolaa bokk ci TRRC bi lu tax boolewuñ ci seen military officers ñoo xam ne dañoo déggu suñ ekkatee lii dinañ leen ah du nii de kay ma Ghana dëkk yooyu yëpp dañ boole seen sérieux seen military officers nga xam ne dañ leen a advice judges yi bishops yi lawyers yi ne leen du nii ne leen la da ngaa ñëw fekk ku ñu fenal la fen bu tooyee yëpp loo xam ne militaire bi doxee wut noonu ñu enduñ indi ko di ko paree nit ñi ne waaw nii la demee na la la demee mbalokante ñëw naa leen lan moota lañ doon faya ci ci ci barracks bi keroog yow xam nga la nay moo tax xam nga loolu su fa seen military a nekkoon nañ kii li moo wax du dëgg du yoon du dëgg moo kenn du ko mun a faya ci barracks boobu xamuñ sax la nay moo tax waaye déedéet yooyu yëpp ngeen génnee ko ci nit ku dëggu indiwu leen ko waaw man su ma nekkoon ci government bi o oh, ma nekkoon si army bi type boobu when I was younger léegi am too old for that thing am na xelaatuma loolu sax waaye su ma nekkoon si army bi dinaa doon koosoon baro ne ko nonsense si ñoo wax ci TRRC bi du dëgga ñii li ñoo wax fen la waaye ku nekkaa ngi préserve sa boppa ku nekka foog ne because tubaab yi ñoo taxawal TRRC bi waaw soo ko defee tubaab yi dañoo mar tubaab yi ñu gën a bon ci àdduna si ñeneen koo def di panda tubaab di martaati tubaab yi di leen moo tardel Afrique mel ni ñoom ay Macky Sall la ñoom martaati tubaab yi rek lañu fi nekkal li ma wax ñii tubaab yi ñoo Macron ñoo ne suñ ne woon Macky Sall taalal réew mi moo koo gënal ne ko kaay ñu jox la paasi màkka parce que ñoom lañ fa nekkal waaw loolu la demee de waaye nañ leen bàyyi suñu xel bu baax a baax a baax dinaa emale nag téeb bi fii te dinaa continuer léegi di def téeb nit ñi di ko dégg xam ne liñ nekk du dëgg du yoon waaw foog ñu wax dëgg gi rek na foog ñu wax dëgg gi waaw waaw ko emal fii dafa teel dama ne woon tey foog ma jóg waason bi ma joxe woon you know utee naa waason bii nag waaye you know dama ne woon xaaral ma def ko ci olof itam ñu ko mën a lu ñu déglu ko ku ko mën a translate ci société mu translate ko ku ko mën a teg ci radio nga teg ko waaye man li ma wax dinaa ko wax maa ngi wax ni dañ war a suu baro government bi pour wan leen ne foreign forces yi ñu war indi ci dëkk bi dafa yàqa dëkk bi parce que moo yàqoon dëkk bi waaw ñu bëri understand nañ di ma am naa nag ay kolosaar yi wax naa ni eh, yow nag yow yow saar yow yaa fi nekkoon di enable yaaya jaame yaa ngi wax fii fen fen leen affaire bi du affaire yi enebul Yaya Jammeh politique sa mel nii gouvernement ni baro bi soo leen ko sete tey ña fa nekk yépp ñu ngi woon ci gannaaw Yaya Jammeh di ko tàccul you know ay ambassadeurs yi leeg ay ñoom Fadera mi nga gis ni leeg ñoom Tàngara mi nga gis ni ñëpp dañ doon tàccul di feccal Yaya Jammeh daxabaa ngi nii soo léegi waxee léegi dañoo wax ne daxaba moo gën a loyal ci baro xana gënoon naa loyal ci Yaya Jammeh survival la sa waay fan la yéen ay géwél yi léegi yooyu yëpp dañ laa tëggal euh, naka Jaliba Kuyaate way yu neex yu nekk la woyal Yaaya Jammeh mu ngi yow léegi feccal woyal Yaaya Jammeh kii baro nit ñi sa nit ñi seen dunda rek la gis toppatoo seen jaboot waaye ñu bëri amuñ baat intention for this country ah waaye Essa Fall moom dafa fiil ne dafa ñëw wane ñëpp ni dañ am bad intention moom moo amoon good intention ci dëkk bi te moo gënoon a am moo gënoon a bon su dee meesorin ñu bon mooy pour liggéey Yaya Jammeh Imam Diallo ñoo fii waaw naka ngeen mën a loolu yow you should be ashamed of yow you should apologize to the nation dégg naa Imam Diallo bi musuta manqué suñ jogaan nañu ngaa dem Salibo Yaaya Jammeh dañ ko faa tegal muy ko taril eh, ko wasifal di ko taral ayatul kursi di ko ñaanal ñoom ñëpp di ko ñaanal yal na ko yàlla guddal fanam yal na ko fi yàlla yaagal yal na ko fi yàlla sàmm njabootam ñii ñoo daan dem di def loolu ñu ñu wan because ñu ngi laa ooyee imaam yaa fi déggu non it work that way religion yi ngaa dégga nii ci àdduna si religious bi ko boolee déggu moo tax may doon wax ne maasi pastor fopp si soo leen indil woon ñooñu amu tay bi yaa jaame ñooñu fiñ taxaw dañ fa taxaw dañ déggu ñooñu soo leen ñëwee ne supervise leen ko ak ak not ne nga indil ñu xëtt gu mel ni docteur Lamine Cissé docteur docteur balaa maa mer ñu naan ay docteur lañ baris ñu a gën a nekk docteur ñu fi gën a nekk moxat parce que tubaab yi ñooñu dañ leen dee brainwash ñu bëri nag xamuñ sax li ñoo def parce que docteur yu bëri léegi dañoo dem ñu bindal leen seen tiis si ñu sorendee ko ñu submit ko ñu jox leen degré waaye soo toggee ñoom five minutes nga xam ne dara nekkul si seen boppay waaw waaw euh, teel na nag waaye xam naa ne fii laa ko yemale ba beneen yoon maa ngi leen gërëm li ngeen ma ci déglu bi di leen wax ne man dina suma concern lay raise waaw dëkk bi fi mu koo jubale ak TRRC bii National Assembly bi neen joxoon mandate bi dañ ko war a seetaat xam ne ha this is one of those mistakes yi ñu dee make history de waaw history dañoo make history serious mistake waaw lii du baalalante nañ leen juboo lii bañante la nañ leen xaajaaloo waaw foofu laa ko emal waaw te beneen yoon